li may ñaan président Macky Sall mooy sëriñ yi ma affiché nii yépp nga tëj seen ndey ci benn pantre daanne ko sëriñ diw loo gis si match bi mu ne la Sénégal day do 3 sëriñ diw mu ne la 2-1 sëriñ diw Ismaïla Sarr day dugal sëriñ diw Cheikhou Kouyaté koy dugal sëriñ diw gaañee bi nee na damm sëriñ diw fële la ñuy dugalee sëriñ diw 4-0 nga tëj leen nag bàyyi ba match bi jeex nga xool résultat yi xool ñan ñoo ciy duul sim ni seen ndey ba nu set len ci tabalu tabalu ki bi pale bi ni wo police yi ngeen livi Dakar sen day ay liv Dakar sen day ay liv ba seen boy yi booy ba léegi dinañ bàyyi duul danoo sonu ci fedi serigne ma avisé sen yep ngay bolé tej len ci ben pantre tej len ci ben pantre bolé tej ci ben pantré ku nek wax li nga gis si match bi dañuy tej sen day nak ba ni match bi jeexe après lan leen di ubbi solution li fa duulu sëriñ yaa ngi doonu danoo sonu ci fedi lii mooy solution bi ku d'accord ak man ci solution bi nee ma waaw ku d'accordul nga ne ma d'accorduma ak Adamo mais lii mooy solution bi dajale sëriñ yi wax ci match yépp Sénégal duul kat yépp nga tëj leen ci benn pantere ku nekk wax li nga gis ci match bi bu demeewul noonu ñu simbi sa nday teg la dóor la ay liif ba sa taat yi booy gisu leen loolu léegi fen jeex léegi sëriñ yi bàyyi fen merci